Boki yi gannaaw ba ñu julli ci yonent bi sayidna muhammad sallallahu Alaihi Wasallam mu mel ni dellusiwaat nañ ci seen seen el vision média fa si yéen ànd yéen ci seen émission bu bees arrijal xawla rasul arrijal xawla rasul nag bu ñu ko waxee mooy ponkal yi nga xam ñoo waroon yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam sallam saxaaba yi tedd yi waroon yonent bi ñu fas yéene koo ak yéen di leen ko dëgmal benn par ben? ba ngeen xam kan mooy saxaaba yépp insha allah ci kàttanu waaye mu mel ni ñu ngi ko ubbee woon ki nga xam ne mooy jàmbaar ja ki nga xamante ne kilifa ga ki nga xamante ne mooy nitu yàlla ñu koy tuddee Aboubacarine Siddiq ñëwoon nañ ci dundam ñëw ci ci askanam ñëw ci li nga xam ne la doon dundee nit ñi tey incha allah ñu fas yéene ñëw ci li nga xam ne mooy gàddaay Aboubacarine Siddiq ak li nga xam ne mooy ñu ànd seeg suñu mbokk suñu xarit oustaz Gambu di borom xam-xam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 wa baad asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ginnaaw ba ñu santee yàlla sant bu yeeyoo jëmmam bi tedd ju màgg ja julli ci sangu-sang yi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi suñu bokk suñu xarit oustaz Babacar ñu lay ziyaar bu baax di la jox sa cër di la wàcce sa wàcc wàccuwaay di nuyu mbokk yi ñuy seetaan ñëpp ci El Vision di nuyu suñu caméraman El Hadj ak ñi mu ko àndal ñëpp ñu leen di ziyaara di leen wàccee seen wàccuwaay. jërëjëf oustaz tabaarakallaahu bëgg nañ ci nuyoo bi bëgg nañ ci ubbi bi yal na yàlla barkeel waaw mu mel oustaz ñu ngi woon ci Aboubacar nga Siddiq am na lu ñu ci jotoon waxtaanee émission bee passé tey nag xam naa dañuy ñëw rek direct ci li nga xam ne mooy gàddaay ga parce que ku wax Aboubacar wax gàddaay gi mënu cee ñàkk ndax ku nekk xam ne dundam yëpp daf ko dundam yëpp daf ko ànd ak yonent joxe ci àllam joxe ci bakkanam ndax lu diina soxla rek moom Aboubacar da ci taxaw oustaz bu ñu bëggee ñëw maanaam ci gàddaay Aboubacar bi nga waxtaan nañ ni gàddaay gi naka la woon ak naka la ànd ak yonent bi ba ñuy gàddaay moom Aboubacar ni si jéem oustaz waaw alhamdulilah Aboubacar gàddaay ga ba yonent bi di gàddaay sallallahu alayhi wa sallam moom Aboubacar ñoo àndoon ba moom la yàlla di wax ci alquran saani isnayni isma fil ghaar is yaqulu li saahibihi laa tax taxsan inna allaha maana foofu ñoom ñaar rek fa nekkoon ci xuntu ak yàlla moo leen fa ñetteel di ko dalal naan ko bul yàlla mi nga ànd ak ñun kon booba xuntu boobu def nañ fa ñetti fan mhm. euh, gàddaay gi mhm. bi muy am mhm. yonente bi mu fi jotee ndigal dafa ñëw kër Abubakar diggu njolloo xam nga ci lislaam du teggin nit di seeti nit ah, di ku njolloo ah. ak guddi ak fajar léegi yonente bi bi mu ñëwee heure boobu sallallahu alayhi wasallam waa kër gi jaaxle na ñeneen ki yonente bi musta ñëw heure bi mu ñëw kat comme ni ko maam Seydil Hadji Malick waxee jaa ar rasulu atiqan fii taqannuhi nahwa dahirati fi hammin wa muhtasimin qaalu a jaana fi xayri saatihi wa dal amru ata min rabbina mu ni. waa kër yéen waa kër Aboubacar bi ñu gisee yonente bi rek. sallallahu alayhi wa sallam heure boobu ak heure bi mu ñëw dañ ni kii daawul ñëw heure bi kon mbir am na. macha allah yonente bi bi mu ñëwee si Aboubacar mu ni ko génneel ñu nekk ci kër gi. Aboubacar ni ko. Mhm. kër gi sa waa kër rek fi nekk. Mhm. ndax ñoom Aysa ñoo fi nekk te Aysa soxna yonente bi. Mhm. mu ko kon kër gi kenn nekk ku dul sa waa kër. mu ni ko. mbir mañ doon xaar de egsi na yàlla jox nañu ci ndigal xaala xad jaana maa kuntu muntaziran min isni hijratina li daari faxtasim ndigal lañ doon xaar daal mhm. jot nañ ko yàlla jox nañu ndigal nee na nañu gàddaay abou bacrin mhm. kontaan ni ko maay ànd ak yow mhm. jooy jooy yu tar suñu yaay Aïcha radiyallahu anha nee na jooy yi abou bacrin jooy keroog musuma gis ku kontaan ba jooyee noonu allah waaye Euh, li ci gën a yéeme. si mhm. Siddiq mhm. dafa jël ñaari daaba. Mhm. ni yonent bi benn bi. yaa koy war benn bi man maa koy war. waaye gis nga yonent bi ci kilifaam bu mat kilifa. dañu ko daaba gi dama koy jënd. li may war man dama koy jënd. waaw kon ñu war see jànge ni nit maanaam doo yilif ay nit rek. lépp lu ñu am nga bëgg ca teg sa loxo. waaye yonent bi moo doon kilifaam. waaye ba ne ko daaba bi dama la koy jox dañu ko dama koy jënd. kon nit noonu ngay defee ak sa njaboot. waaye bi ñu demee ànd ca xunt wa ñu sax fa ñetti fan. wala xew ca xunt wa ak yooyu yëpp. naa ni day xaw a xat moo tax duñ ci mën a jaar. léegi. ñu def nañ fa ñetti fan door a jàll continue Madina. kon yeneen bi bi ko ñëpp bàyyi Abu Bakrin moo ànd ak moom. waaw noonu lañ àndee ca gàddaay ga. ba ñu demee Madinatul Munawwara ak nañu leen fa teeroo. ba nañu eggee bi leen waye taala al badru alayna ba ñu eggee xàmmewuñu woon kan moo si yeneen bi. Abubakrin euh, bëgg ñëw bëgg leen wan kan mooy yonente bi moo mujj moo ommat gilee mu yonente bi ñu xam ni kon kee mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ àndee ca gàddaay ba uh-huh. ah, bari na yu xew ci yoon bi nag yoo xam ni yëpp euh, ci biir xuntuwaak yooyu yëpp xam naa ni lu xat ci émission bi moo tax ndax yeneen laaj yi ñu ngi ci uh-huh. gàddaay gi daal ci gàttal noonu la demee woon macha allah jërëjëf Oustaz li nga wax ci gàddaay gi am na solo lool eh, wane nga ne rek Aboubacar mosul dañ di ànd yonente bi ci zaahir ak ci baatin keroog bi nga xamee ne yonent am na 40 ans ñu yónni ko Aboubacar moo ko njëkk gëm ànd ak moom zahir wa baatin waaye oustaz euh, ci biir gàddaay gi foog naa Aboubacar pour wax la ngëmam ak ñi mu gëmee woon yonent bi ak ni mu ko daan dëggalee foog naa bu ñu demee ci gàddaay bokk na bi ñu nekkee ci xunt mi te jaan bi ñu yóbboo ci pax mi ndeysaan Aboubacar xam ne bu génnee dina matt sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam naka la jël tànkam bu tedd boobu moom Aboubacarin Siddiq teg ko ci pax mi ndeysaan waaye xam na kii mu amal affaire mooy kan xam na ne kii mooy sopp yonent bi sañu koo màtt naka la ko mbëkk mbëkk mbëkk mbëkk ba sonn aw bakkar lànk na di dindi tànkam ndeysaan mu di def lu dul màtt ko pour mën a génn ziar yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ko màttee yonent bi li ko xamal ne aw bakkar siddiir am na lu ko laal mooy ñàq bi nga xam ne moom la doon ñàq ba toq ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi door yëg ne ndeysaan am na lu laal abou ci la ko waxee na ko siddiir ci la ko waxee nag soppe bi la xew mu ne ko dafa am lu nekkoon ci pax mi loo xam ne su ma ko bàyyi woon bu génnee matt la te yow sang bi dara waru laa laal ma teg ci sama tànk pour mu matt ma moo gën mu matt la yow sayidna sallallahu alayhi wa sallam barakallahu mu mel ni nag euh, bu ñu waxee ga ci abou bakar waaye ku nekk xam ne abou bakar yemul ci gàddaay kase kase parce que tamit ànd gi mu daan ak yonent bi bokk na ci Euh, mësul nangoo jiit yonent bi waaye mësul nangoo wane benn cër ci kanam yonent bi mm-hmm. bokk na ci li nga wax sànq bañ de demee Medina pour mu wane ne kii mooy sang bi ca la wàcc ndeysaan ommat gi leen waaye oustaz ku wax Aboubacar wax jihaad bi ku wax Aboubacar mm-hmm. wax euh, joxe gam doon joxe alalam ku wax Aboubacar wax joxe gam doon joxe bakkanam mm-hmm. oustaz xam naa bu ko defee dañuy ñëw balaa temps bi jeex nga jaaraan ñu tuuti ci li nga xam ne mooy jihaad ndax foog naa ñaari jihaad ci la Aboubacar def ji na ci bakkanam Jihad ci alalam oustaz balaa loolu da nga ñuy ñëw ci jihad. gi nga xam ne moom la jihaad ci bakkanam pare moom aw bakkan ñu joor ci alalam bi waaw jihaad ci bakkanam mhm. euh, aboubacrine siddiq ndeysaan xare yu bari ànd na ko yonente bi xare ci macha allah fekk na xare badar mhm. fekke na xare uhud xare Aha. bayatu ridwan ak sulhul hudaybiya ak xaybar fatxu makka mhm. ak euh, bi ubbi wida hijatul wida yooyu yëpp fekke na ko ak tabuk yooyu yëpp fekke na ko mhm. aboubacar kon mhm. jihaad na ci bakkanam mhm. xeex na mhm. xare na xare yooyu yëpp mhm. te bi fi bi fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee taxawaat takkaat na ay jihaad ñi nga xam ne dañoo bañoon ni duñ joxe azaka mhm. aboubacrin dafa takk xare xeex ak ñoom moom aboubacar aboubacrin si tiir te boobu yonente bi jóge na fi yonente bi jóge fi am ñu bañ ñi dootuñu génnee azaka comme yonente bi jóge na fi aboubacrin takk xare xeex ak ñoom kon aboubacrin da doon jihaad ci bakkanam jihaad na ci bakkanam jihaad na ci alalam waaw Aboubacar it bokkoon na ci magu saxaaba yi nga xam ne mokkaloon na alxuraan tamit. ndeysaan yooyu yëpp Aboubacar it xare yooyu yëpp fekke na ko ak xare xunay nit xare yooyu yëpp fekke na ko. xare Uhud ba mu méttee ba ñëpp dawee moom daw. Mm-hmm. te xare Uhud yooyu abu kii Omar ibnu Xataab sax nee moom dafa daw. Mm-hmm. yooyu yëpp. moom dawul Abu Bakr mhm. mu ngi taxaw yonente bi rek kon jihaat na ci bakkanam mhm. waaw naka noonu noonu la jihaatee ci alalam tamit mhm. wax naa dinañ ci ñëw léegi incha allah tey jihaat boobu yëpp ànd ak li muy jihaat yëpp Abu Bakrin musta bëgg koy takk ndeysaan ndeysaan buñ ko musaan di takk sax danaan allahuma anta aalamu bi min nafsi kon loolu mooy wane ne moom li mu doon def yëpp dafa doon yàlla kese billaay yàlla rek ak dimbale diina ak dimbale sàng bu tedd wallaahi wallaahi mm. buñ ko musaan di takk danaan allahuma anta aalamu bi min nafsi ndeysaan wa ana aalamu bi nafsi minhum ñii di ma tàgg yàlla yaa gën a xam li nekk ci man waaye man nii ñuy tàgg tamit maa gën a xam li nekk ci man ndeysaan allahuma ij'alni xayran mimma yadunnuun yàlla lii ñu njort ci man yàlla yal na ko def muy jiw mhm. waaye wax fir maa laa ya'lamuun mhm. li ñu xamul ñoom yàlla yal na ma ko jéggal wala tu'aaxidnii bimaa yaquuluun yàlla bu ma jàpp liñ may wax